wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi zawi ridwaani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel lii di seenu grande mosquée Touba ñu ngi leen di nuyu ak fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa bi toogee jotaayu Cheikhul Khadim di ñaan suñ boroom yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggale ay yéeneem ak i naalam di ko ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ay kilifay diine lañ te ne ci kanamu njaboot gi ci njabootul islam gépp di leen ndokkeel yéen ñëpp ci weeru màgg wi nga xam ne ci la ñu nekk di weeru rajabul fard di weeru am solo xew-xew yu am solo xew ci rawatina nag xew-xew bi nga xam ne jullit ñëpp ko bokk te mu am solo lool mu di riñaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ak yéegam eh, te lu bari ci xam-xam lu bari ci boroom xam-xam yi wax ne ci weer wii la xewe woon ci guddi ñaar fukkeel gi ak juróom-ñaar te ci xew-xew boobu ci la julli juróom wàcce woon kon ñu ngi ci anniversaire julli juróom ndokkeel ñëpp di ci ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel it bokkitaaru bi yëpp ndax bu ñu nee Kazu Rajab xel yëpp dem ci feeñu jamono Cheikh Mahmadul Fadil doon kenn ci njabootu Cheikhul Xadim gi kon ñu ngi ci ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ay taalibe lañu rawatina waa Cheikh Mahmadul Fadil di dellusiwaat nag tey jii ci jataay bi nga xam ne baaxoo nañ koo ànd ak yéen te di ko seq ak suñu mbokk yi di waa daa daayiratu Muqaddamatul Xidma ak seen bi nga xam ne moo di Grande Mosquée Touba ñu ñëw nag tey ci ñaareelu jataay bi aju ci xayaatu Cheikhul Xadim muy dunduk sëriñ bu mag bi yàlla dogal jataay bu njëkk bi ñu amoon ak yéen ci weer wi jàll ñu tàmbali woon ko waxtaanoon ci loo xam ne mi ngi aju ci cosaani sëriñ bu mag bi ci wàllu ay waajuram ci wàllu uh, wayjur wu góor ak ci ci wàllu wayjur wu jigéen loola nekkoon laytaay kon joo xam ne dañ ko doon laytaayale waxtaan wi waxtaan yi ci topp te bii di ko ubbi moom itam incha allahu taala kon tey ñu fas yéene ñëw nag ci ñaareelu jataay bi mu jëm ci ganeek jamonok al cheikh ahmad al xadim Euh, kañ la sëriñ bi gane jamono bu ñee kañ la mooy danañ wax lu aju ci at mi danañ waxit lu aju ci weer wi danañ waxit lu aju ci bis bi <coughs> lenn lu ci nekk cëslaay ya nga xam ne am nañ ko ñu tudd ko delluwaay ya nga xam ne itam ci la ñuy sukkandiku itam ñu tudd ko te delluwaay yooyu ya ca gën a am solo mooy yi nga xam ne mooy delluwaay yi ñu xam ci yoonu murit tàmbulee ci e, téere Cheikh Mahamadul Bachir di Minanul Baaxil Qadim ba ci téere yi nga xam ne Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana bind na ko ci taarixu yoon wi ak ci jaar-jaari sëriñ bi ak mbooram lu mel ne An-Nubzal Mubaaraka ak it lu mel ne Irwa un Nadim ba ci e, mbindum sëriñ Moussa mi nga xam ne moom it ku ne xam na taxawaay bi nga xam ne am na ko ci yoonu mu murit ci wàllu taarix bu ko defee danañ tudd itam lu aju ci yenn xew-xew yi nga xam ne jàpp nañ ne dafa lëkkalook feeñu jamonoog suñu jàmbaar ji suñu yaakaar yu Seexul Xadim yu am solo yoo xam ne mat na bàyyi xel kañ la sëriñ bi gën a jamono loolu am na ay wax yu ci rot yoo xam ne mënees na ko rotal mënees na ko indi mu am wuute gu ci am ci at mi jëmmi at mi ñenn ñi dañu wax ne sëriñ bi mi ngi gane jamono ci atum junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk muy mille deux cent soixante-dix mille deux cent soixante-dix loolu soo ko tollalee ati tubaab day ne ci diggante 1853 jàpp 1854 euh, bu ñu demee ci xoolee boroom minam Cheikh Ahmadul Bachir moom xëy na soriwul lool ci ganek jamono gi waaye tudd na at moomu ndax dafa ne wulida fi xuduudi sabain wal miatayni wal alf sëriñ bi mu ngi gane jamono ci loo xam ne du sori du sori at moom ma wax muy 1270 loolu ci minam euh, boo demee ci borom Nubza muy sëñ Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana moom itam andi na loo xam ne moo xaw a gën a détaillé tuuti ndax bi muy ñëwee ci gën ak jamono Cheikhul Khadim dafa xam ne lu aju ci ak feeñam jamono day Serigne Mbacke Bousso wax na ne loolu sëñ Madi Lamin mooy nettali sëriñ bu so wax na ne sëriñ bi day radiallahu anhu mi ngi gane jamono taqriban taqriban la wax foofu baada sabain wal miatayni wal alf min al hijrati nabawiya taqriban mooy à peu près ci tollale daal xanaa du sore kon fii xuduudi ji sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir waxoon ci minan mu wax ne daal sëñ sëñ Madi Lamin wax ne ci nubza sëñ Mbàkke nee na sëriñ bi taqriban mi ngi mi ngi feeñ jamono ci ginnaaw foofu nag baatu baada la jëfandikoo ci ginnaaw juróom ñaar fukki at ak ñaar ak junni maanaam junni ñaar téeméer ak ak ak maanaam juróom euh, muy at moomu nga xam ne moom la ñuy tënke ci baatu sharaa ama sharaa danañ ñëw ci ni ko sëñ Musaa Ka indee ci wolof mu leer incha allah buñ noppee ci li boroom euh, ba maanaam nubza indi te mooy borom irwaay rek di sëñ Mame Lamine Diop Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana radiyallahu taala anhu anhum jamian ci biir nuf sa boobu ba tey sëñ Mame Lamine indi na ci loo xam ne it da koo def mu nekk tegtal ci kuy gëstu te bëgg a xam dëgg-dëgg sëriñ bi li mu dund ci àddina ci zaahir ci at ndax ñu mën koo méngale ba xam ndax dëppoo naag ama sharaa boobu muy 1270 yooyu mu nettali benn xissa boo xam ne xissa bi sax mi ngi ko gën a leerale ci alminaxul miskiya bi nga xam ne ba tey moom boppam moo ko taalif di ci nettali lenn ci xabaari sëñ bi waaye bu dee ci nub sa dafa wax ne su ma sukkandikoo ci kaw li nga xam ne sama mbokkum bi mu ñu wax mu xam du Hawa sëñ Moodu Awa Njaay eh, wax na ma ko nee na sëriñ bu mag bi wax na leen ci atum Bamsasine ci atum 1342 ci ati lislaam boobu mi ngi njaareem nga xëy nga xam ne euh, daanaka maanam ginnaaw loolu diggante bi ay ñeenti at jàpp xëy na juróomi at la fi amaat wala ñeent soog a ñibbi si Touba nee ci at moomu wax na leen ni ak dundam moom Cheikhul Khadim mi ngi tolloog limub aayey suuratu Zumar sëñ bi Lamin bi waxee loolu mu daal wéy wax loo xam ne mel na ne mën naa am muy waxi boppam moom jum jum ci dolli ngir saraa loolu maanaam aay saaru zumar mu daane te saaru zumar isnataani wa sabuuna aaya juróom-ñaar fukki aaya la ak ñaar mu daal ci teg na kon su booba ak ganeem jamono day nekk aama jaarashin aama ja aama maanaam ci ci yenn nusxa yi nag day mel ne dañoo indi jiim muy jaarasin waaye jàpp naa ne baagi la bëgg a def muy baarasin te boo ko seetee ba tey du soreek euh, maanaam bi charaa bi bi charaa kon foofu day daal di indi beneen version bi nga xam ne mooy wax ne sëriñ bi mu ngi feeñ jamono 1272 au lieu muy nekk 1270 ndax bu dee jaarasin moom 1273 lay doon te loolu moom gisaguñu ci ci ci gëstu yi ñu am euh, kenn ko wax loolu diggante 1270 la ñuy wax. mooy fi ma toll nii di ko leeral beneen ba ca topp mooy 1272 te mooy bi walla bi wala bicharain euh, te loolu mooy xaw a jege 1855 am na sax beneen version buy wax ama sharaa nga xam ne alif gi dañ ko caa dolli muy 1271 daanaka ñetti wax yooyu lañ gis ñun ci gëstu ci wute yi ci am waaye bu dee sharaa ji nag moom tegtal yii ñu ci am bu ñu sukkandikoo ci lii sëñ mi daal mi nekk li wax ne sëñ Modou Awa Ndiaye moo ko wax boo demee ca alminax sax gën na ko faa leeral wax ne sëñ Modou Awa Ndiaye sëñ sëñ Mouhamadou Awa ibnu Mouhamad Mokhtar njaay moo ma wax man sëñ Modou Lamine ne ma sëñ bi radiyallahu anhu moo ko wax ne ko ak axbarahu moo ko xibaar ne ko ci atum bam sa sasun la ko wax mooy 1342 junneeg ñett téeméer ñeent fukk ak ñaar ne ko ak dundam mi ngi tollook aaye suratu zumar te mooy juróom-ñaar fukk ak ñaar mu teg ci ne sëñ bi nee na sëñ bi teg ci ne te màndargam maanaam dëggug wax jooju ak loolu noonu mooy ne dana am nit ku baax ku sell ku màgg ku bokk ci naar gànnaar yi koo xam ne dana génn àddina ci at mii ci atum bam session moomu ñu toog ab diir ba at ma laataan jeex ñu tàggee ay Cheikh Sidiya Baba ci fan yooya léegi nag foofu sew-sew bi fi nekk mooy ndax juróom-ñaar fukk yooyu ak juróom-ñaar sëñ bi wax ne moo doon limu ak dundam te mooy aayu suratu Zumar ndax da cee jublu li mu am li mu li mu amagun li mu amagun ci bi mu feeñee jamono ba ci atum bam sësin moomu nga xam ne kon boo ci tegaatee la ca topp day daal di ëpp kon juróom-ñaar fukk ak ñaar wala ndax dafa bëgg a wax ne lim dund lépp lépp lépp juróom-ñaar fukk ñaar lay doon foofu nag liñ jàpp ñun mooy dafa bëgg wax ba bi muy wax wax ji boobu mi ngi ci juróom-ñaar fukk atam ak ñaar ndax sëñ bi sax ci ni muy taaliqe ak ni muy leerale wax ji da nga xam ne loolu la bëgg a wax wala boog man loolu laa ci déggee euh, euh, te it zumar dëgg la isnataani wa sabaon juróom-ñaar fukk ak ñaar am na téere yu ko def mu nekk limub aaya yi waaye bari na téere yu indi itam limub aaya suratu zumar mu nekk juróom ak juróom juróom-ñaar fukk ak juróom te boo seetee euh, diggante charan ba wam sachin maanaam 1270 ba 1200 ba ba 1346 gi sëñ bi ñibbi si Touba gi boo ko xoolee dalay jox limub juróom-ñaar fukki at ak juróom moo tax foofu ñi wax ne charaa la te am ay cislaa yu leer ñoom jàpp nañ ne ah euh, loolu mooy li gën a lëngagun mooy li nga xam ne moo gën a lëngagun euh, teewul nag ba tey boo demee ci Irwa sëñ bi Lamin indiwaat na fa lu xaw a niroog lii waaye foofa. dafa joxe ñaari dat yi muy atum charan bi 1270 bi wax na it waxees na ne waxees na ne atum bi charan wala bi charain te mooy 1272 la feeñ jamono wax naa sànq ne am na ñoo xam ne charan ji alif googu nga xam ne ñenn ñi dañ ko jàppee aliful itlaq ñenn ñi dañ koy limaale ci lim bi mu doon soo ko booleeg 1270 yi di nekk 1271 moo tax ñenn ñi jàpp loolu ñooñu it am nañ seen i tegtali bopp loolu lépp xëy na bañ a xuus ci ay détails rek moo tax waaye diggante ñaari wuute yi gën a siiw daal mooy soixante-dix ji ak soixante-douze ji moo tax ci irwa sëñ Modou Lamine bi mu bi mu indee ñaari wax yooyu mooy mille deux cent soixante-dix ji ak mille deux cent soixante-douze ji dafa indi bayit yoo xam ne benn borom xam-xam bu ñuy wax alxaaji Hamid ibnu Ousmane at-Tilleri moo ko woy di ci taarixal gan ak jamono Cheikhul Xadim mu ne qad wulida alxadimu man qad charaa chariat almuxtaari ama charaa Euh, wane ne euh, Cheikhul Khadim mi ngi gane jamono moom mi nga xam ne moo euh, yeesal chariatu yonent bi sallallahu alayhi mi ngi gane jamono caatum atum charaa Chine su tooy si mooy junni raa gi mooy ñaar téeméer ayin gi di maanaam juróom-ñaar fukk muy mille deux cent soixante dix léegi alif gee nga xam ne moo xëcc bayit wa nag muy saraaja ñenn ñi de te te te te ñu bari defe ne ñu bari jàpp ne alifu itlaq la goo xam ne da ko motale woy wi eh, ndax xat charaa jee ñenn ngi dañ ko limaale ci lim bi mu nekk mille deux cent soixante onze waaye ñi ëpp nag soixante dix yi lañ lim moom mu tekki ne summa mada li rabbihi aama sumuus wa umruhu aynun wa daalun kas sumuus eh, mu nekk fi nag ak dundam ko barkeel googu nga xam ne macha allah lépp xéewal la lépp njëriñ la ba wuy ji moom ci atum sumuus sumuus boo ko xoolee junni la Euh, ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn moom la ñuy wax rek wam sa chin wam sa chin mooy sumus rek foofu nag gis nga mu daal di indi nag limu at yi mu dund wa umruhu aynun wa daalun ka sumus mu ne ak dundam mi ngi nekk ayn ak daal ayn daal soo ko boolee dalay jox soixante-quatorze soixante-quatorze ans waaye mu tekki ne wa qiila inna umrahu maalu niltal muna wa sarrakal maalu Euh, mu ne waaye nag am am na ñoo xam ne ak dundam itam mi ngi doon ma aal ma aal boo jëlee miim ñeen fukk jël laam fanweer day daal di nekk juróom-ñaar fukk nga boole ci ñaari alif mu nekk douze foofu kon am na wuute foofu waaye quinze ji daal moom mooy li nga xam ne moom lañ gën a jàpp euh, sëñ sëñ Modou Bousso sëñ Mbacke Bousso moom itam ca marché ba muy marché al Cheikhul Khadim te mooy. ak suufun am ixtiwaalu bawaari dahimal qawma am xaraabu diyaari ba mu ne ba ci biir waaye mi ngi tudd li sëriñ bi am ci ay fan lim dund ci zaahir mu ne umruhu udda awaihi udda awaihi daa safaa'i kaana min anfai l amaari sëñ Modou mu wax ne sëriñ bi mi ngi dund limub udda udda boo ko seetee moom itam ayin mi ngi nekk juróom-ñaar fukk daal nekk ñeent mu nekk soixante-quatorze mu ne mu ne am nañu wax ayhi aw ayhi ayhi ayin juróom-ñaar fukk la ha di juróom ha bi mu nekk soixante-quinze ans za safa muy boroomuk sell kaana xaqan min anfail amali wallahi wax na dëgg dëgg la bu wér a wér ak dundam bokk na ci dund yi gën a am njariñ yooyu kon ay cislaay la yoo xam ne dañ ko indi rek ngir layale ko taarixu eh, zuhuri Cheikhina al Xadim mooy taarix bi nga xam ne ci la Cheikhul Xadim feeñ jamono te mooy diggante charaa ji wala bi charaa wala bi charain wala charaa ja kon am na ñu wax soixante dix maanaam mille deux cent soixante dix ñenn ñu wax mille deux cent soixante onze ñenn ñu wax mille deux cent soixante douze diggante mille huit cent cinquante trois cinq ci ati tubaab foofu nag buñ delloo ci sëñ Musaa Ka moom <clears throat> lam gën a lëngal te mooy li ñu bari lëngal itam nag mooy charaa ji te moom da ciy indi nettali boo xam ne dafa mel ne daf ko dafa boo ko toppee dafa jokkaloo ba ci sëriñ bi ndax am na ci nettali boo xam ne sëñ Mbàkke Buso la jaar ba agsi ci eh, di néeg a Cheikhul eh, moo tax sëñ Musaa ca woy wa mu ne ci boo demee ci ci ci téere bi muy nettalee dikku Cheikh Omar Fouti yi nga xam dinañ ñëw ci mujj waxtaan wi incha allahu taala ba mu koy nettali ba agsi ci feeñu jamono sëriñ bi dafa dafa wax ne ren jile lay juddu loolu Cheikh Omar ko wax ren jile ren jile lay juddu ci ama charaa lakum min addiini fadaaka waraa loolu ay wolof yu leer la yoo xam ne da ko booleeg arab ren jile lay juddu loolu leer na ci ama charaa mooy ci ci atum 1270 lakum min addiini lu xam ne xam nañ ne baat dafa dafa àbbu ab aaya ci alquran andi ko boo xam ne dañu wax ne wax ji sëñ beeko ko woon bi muy nettali di ko Cheikh Omar Mbacke mu sëñ Moussa Ka di ko indiwaat mu ne ren jile lay juddu ci ama sharaa lakum min addiini fa zaaka waraa daal ne ca mooma at e, la sayxu ñëw fi Mbàkke mu Cheikh Omar bawoo ca Fuuta Tooro moo am barke loolu dañ ci ñëwaat ndax am na feneen foo xam ne sax sëñ sëñ Moussa gën na faa yaatal di wax ne at ma sëriñ tuubaa ñëwee ci duniyaa laay bëgg laay bëgg a wax waaw Euh, ba dellu Bodia waaw mu mu wax ne at ma Sëriñ Tuubaa ñëwee ci duniyaa laay bëgg a dellu wax ba dellu bood ba ba ba dolli Bodia yokk Bodia daal ne euh, waaw ak dëkk baak ndeyam ju baax jay xar baax baa xam nga moo tax réew mi mépp far baax daal wax ne taarix ba mooy junnee ki ñaari téeméer yu teg juróom ñaar fukk lim bi lee wóor suñu saak foofu daa mel ne kon moom <laughs> dafa dafa daal di notal bu wér a wér ama ah, sharaa ji mu daal wax ne loolooy atam juddu ba waaw dëkku mbàkke la feeñe moo tax ñépp ànd ak barke dal wax ne guddi keroog la leer ga dellu jolli ba asamaaw ba wër ci bambay dégg nga jolli waaw ànd na ci yu bare bare yoo xam ne am na foo xam ne sax day wax ne cheikh euh, ma wax la at ma cheikhu bamba juddoo ne leen suñuy nopp da def koo baddoo wala bëddoo cheikh bamba xarnu badi ama charaa lakum min addiini la juddu baraa moo noon limub lakum la yàlla appoon dundam ba fi duniya te mooy boroom kun loolaay juróom ñeen fukki at yu sotti moo di limub lakum bu leen koy fàtte moom nag limub lahum lahum mooy la dund ci at euh, faf gedd àddunaam ne meng moo mat loolaay juróom ñaar fukki at yu teg juróom mu gedd dégg nga mu gedd des wa fukki at la ak juróom boo ko toppee dem na boo wax sax fukki at ak juróom yooyu sax ñi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi séddale muy ñett nit kenn ku nekk mu jox la juróomi at waaye loolu day loo xam ne dafa xóot ba euh, du nekk lu ñu mën a waxtaane ci ci fu kon bu ñu sukkandikoo ci sëñ Mad Lamin sukkandiku ci sëñ Basiiru sukkandiku ci euh, sëñ Cheikh Moussa Ka ak ak yeneen yi nga xam ne ñoo aju ci yooyu yëpp dinañ gis ne kon charaa ji daal muy 1270 ji daal jàpp na ci la sëñ bi feeñ bu ñu ñëwee nag ci lu gaaw ci weer wi weer wi am na wuute moom itam ñenn ñi dañu wax ne sëñ mi ngi feeñ ci weeru baraxlu ci weeru baraxlu ñenn ñi wax ne mi ngi feeñ ci weeru tamxarit waaye ci lu ñutu yi nga xam ne ay bokk yu baax ñu ngi koy def te moo muy ñoo xam ne dañoo tuddee seen bopp sew-sewi mboor di liggéey liggéey bu am solo boo xam ne daa ko faral di cité lu bare bari ci waxtaan yi dafa feeñagul nag dafa génnagul waaye dafa noppeegul waaye bu noppee incha allah na am solo dem nañ ba gis ne euh, weer na weeru maanaam baraxlu wi du du xëy na teggi wi ndax ba moom am na ko jàpp am na ñu ko jàpp te du duñ ne du maanaam du ci moom waaye taarix nag comme dafa baaxoo wute moo tax léegi mën nañu indi ñaar yëpp wax ne am nañu wax tam xarit am ñu wax itam dégg nga baraxlu bokk na ci cëslaay li am ci maanaam baraxlu bi mooy nett lib sëñ Moustapha Abdourahman suñu wayjur bu baax boobu nga xam ne moom nett li na wax ne sëriñ bi ci euh, fukki fan ak juróom sax la wax moom ci weeru baraxlu ci la mag ñi wax ne ci la feeñ jamono euh, ci atum 1270 euh, moomu kon bis baa ngi noonu at maa ngi noonu weer waa ngi noonu mu des nag béréb bi béréb bi nag moom it fu ñu xam la sëñ Musaa Ka tudd na ko léegi bi may nettali woy yooyu te moo di Mbàkke Bawal wax nañu sëñ sëñ Mate Lamine bi mu ko njëkkee bind dafa bindoon xëy na xuru Mbàkke wax na dëkk bu ne ci diggante Ndulo ak Dala loolu sëñ Moustapha Lay moo ma ko nettali euh, nee na bi ko sëñ bi ko sëñ Moussa Kay gisee ne ko nag ma sëñ sëñ maanaam ne ko daal sëñ sëñ mag mi ngi mi ngi ganee jamono Mbàkke nee na sëñ Mate Lamine ci amaana almiya bi mu am mu ne ko ah, yow de li nga ci wax loo ci wax loolaa mat a jàpp ndax yow da nga cee bokk ba noppi te jege leen. nga xam ne yow da ngaa xam li xew ci gox bi moo tax mu daal di dindi xuru euh, mbàkke ba mu defoon wala boog diggante nduula ak dalaja daal di bind mbàkke te mbàkke ji itam am na ay cislaa yu wér ndax sëñ bu mag bi daana ko wax di dégg nañ ci xisa yoo xam ne mag yi mosoo bi daañu ko nettali muy wax ne bokk na li tax mu bëgg mbàkke mbàkke gënal ko dégg nga dëkk yu bare bari mooy ne euh, fa la feeñe jamono euh, fa la njëkk gàmmoo ñenn ñi wax ne fa la njëkk tagg rasulullahi yëpp am na ay ay wax ñaari wax Euh, waaye ba ko ñetteel ñu mu ne fala ko Cheikh Omar doon seete kon dikku Cheikh Omar Foutiyu googu itam lu mat a taxaw la tuuti ndax moom itam dafa am tegtal yu leer yoo xam ne da cee am te moom it euh, ak ñëwam doon ñëw doon junju si mu nekk man su ko tuddee irhaas irhaas buñ ko mënoon wax irhaas la doon wane ne am na ko war a ñëw ci at mii te bu ñëwee mooy doon ki nga xam ne mooy ràmmu xeet wi mooy yeesal diine yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Omar nag ci gëstu bokk yooyu ma doon junj léegi muy waa sew sewi mboor yooyu dem nañ ci seen lu ñutu ba gis ne Cheikh Omar dafa ñëw ñaari yoon Mbàkke ñëw na ñaari yoon Mbàkke yoon wu njëkk wi mooy wëram gu yaatu goog nga xam ne da doon wër réew mi te ànd ak xare yu ba te ànd xare bu bu bu bu am solo te loolu du sori ay weti 1846 kon jiitu na feeñu sëriñ bi ci ay at yu néew xëy na ay xëy na juróom-ñetti at noonu. Euh, loolu bi mu bi mu ñëwee Mbàkke wax nañu yoon wu njëkk woowu mi ngi daloon ci kër taalibeem bu ñuy wax mañan kodd fii ñu wax kuude gi ci wetu raay bi foofu la daloon yoonu ñaareel bi nag mi ngi ñëw ci weer 1853 kon mooy at mi nga xam ne ci la sëriñ Cheikhul Khadim war a feeñe jamono te bi mu ñëwee booba mi ngi dal ci kër ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Seynabou Seck sëriñ Ahmadou maanaam Seynabou Seck mi nga xam ne ndeyam soxna Seynabou Seck euh, moom la ñu wax Seynabou Absa Ndiaye dooyu maam maaram la maam maaram foofu foofa la foofa la wàccoon ci yoonu ñaareel wi yoon wu njëkk wee sax dañu wax ne bi mu ñëwee magi mbàkke yi dañoo dañoo jël ñetti ndaw ñetti waxambaane yoo xam ne jàpp nañ ne ñoo raw ci waxambaane yi dëkk bi yebal bi wax leen ñu bind benn bataaxel lañ bëgg lépp ci Cheikh Omar ñu def ko ci bataaxel bi daal di koy jox ndaw yooyu ñu dem yóbbul ko ko ci fam dal wax nañ ne ñetti ñooña sëñ Mor Anta Sële nga ca woon ak sëñ Ibra Kandi Mbàkke moom sëñ Ibrahima Awa ak ku ñu wax sëriñ Omar Ka te ñoom ñaar muy maanaam sëñ Ibra Kanni ak ak euh, sëñ Omar Ka ay jarbaat lañ ci maam Baara Sadio mi nga xam ne doomi ndey maam Balla Aysa mi way juru maam Mor Anta Sali te ñu xam xam ko ci wilaayam te ci yoonu te ci yoonu ñaareelu Cheikh Omar bi sax ci la Cheikh Omar feeñale wilaaya ak maam Baara Sadio ci ni ko sëñ Musaa Ka nettalee ci euh, taarixu dikkuk dégg nga Cheikh Omar Fouti kon euh, Cheikh Omar ñaar yoon yooyu mu ñëw bii di ci ay mille vers 1846 bi ci bi ci des nekk 1853 bu mujj boobu nag bi mu ñëwee ñëw na ba ci fii mbusoo bi nekk tey maanaam penc mbusoo bi ci Mbàkke foofu yéer gi nekk euh, fa la doon xam-xamale mag i Mbàkke yi ne leen kii war a xettali e, yoon xeetu yoon saa sallam war a yeesal diine ci at mi la war a feeñ loolu wax nañu ne Sëñ Saaliw sax daana ko nett lu bari di di di wax ndaxam moo sax waxuma euh, ne euh, maanaam euh, waa waa waa Mbàkke rek wala wala wala waa dëkk ba rek ñoom ñoo tudd Cheikh Omar doom waaye mboolem ku bokk ci ma képp ku nekkoon ci tund woowa ci at mooma ku ci am doom ju góor ju feeñ ci at moom wala ci jamono yooyu da nga ko tudd Cheikh Omar te loolu yaakaar naa firnde ji mën na sa cee teg baaraam ndax ku mel ne suñu maam Cheikhu Bousso maam Cheikh Omar Bousso mi nga xam ne moo sëñ Mbàkke Bousso ak ak sëñ Massamba Fatick soxna xari ñoo bokk ndey ak baay euh, moom ci at moomu la feeñ jamono mook euh, Cheikhul Khadim euh, ñoo bokk daanaka mel na at mi ci yenn riwaaye yi te Cheikh Omar lañ ko tuddee te sëñ Sall daan wax ne mboolem ku feeñ jamono ci maanaam njabootu mag yi tund woowa ci at mooma Cheikh Omar la ñu tuddee loolu day wane maanaam ci turu Cheikh rek ak wilaay gi ko yàlla joxoon. ak it ki mu doon nit ku nit ku baax ku sell ku ku koo xam ne ku am xol bu rafet la. loolu bokk yi ci tënk mooy li nga xam ne moom la ñu waajaloon ci euh, feeñu jamono euh, ki nga xam ne moo di suñu yaakaar Cheikhna al Khadim wax nañ lu ci at mi. wax nañ bis bi wax nañ lu aju ci weer wi loolu lépp nag taarix la taarix nag moo baaxoo wuute buñ demoon buñ demee ba gis leneen lu gën a wérit dañuy indi loola rek waaye lii daal lañ jàppagun ci li nga xam ne euh, moom la ñu xëy na gisagun ci gëstu ak lu ñutu ñu ngi leen kon jox daje incha allahu taala ci weer wii di ñëw ci beneen jataay ci xayaatu Cheikh al Xadim ànd ak euh, chaîne bi télévision bii nga xam ne mooy télévision grande mosquée de Touba te lëkkaloog waa daayira muqaddamatul xidma di ñaan yàlla jëlee fi mbas mi nag ba mu jeex tàkk dolli jàmm ak xéwal ci réew mi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bi jaayi xayril xalqi nixmal jaydoo